Reug Reug ñu lay nuyu di la wax félicitation bàyyi euh, euh, Buur maa ngi lay nuyu di nuyu sama gaay yëpp yi fi nekk waaw di nuyu Laasana euh, di ñaanal sama papa ak sama tante yàlla na leen yàlla xaare àjjana firdawsi di ñaanal sama yaay yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba si kanam ak kanam kanam di nuyu sama papa yépp ku si mel ni papa Laaji papa Tafa papa Garaay papa Amma maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp waaw di nuyu sama benn grand muy Leyti seen di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm moom ak soxnaam day sonn si samay mbir ginnaaw yàlla rërëg tey bu egsee fii layti génne si route bu bëri dama koy teree nelaw dama koy teree doxi ay soxlaam te grand bi boo xam ne tey dafa dafa bë dafa bëri dafa xadd trop mais jël na xataay yooyu bépp da koy teg fale nekk si man nekk samay besoin nekk lu ma bëgg mu dox si kon kooku aw ma fay maa ngi koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm yàlla bàyyi ko fi ba si kanam a kanam kanam ba lu mu séntu si man rek yàlla suñu borom def ko di wax nag Sénégal yàlla na fi yàgg jàmm yàgg. amiin ci barke Seydina Mohamed. retour tuuti sur MMA. MMA la terre promise. Mhm. lamb doxatul. sooxe. Mhm, mhm. mbëri yàlla moytu ci ndam mais xam nga tey jii bu ma waxee ne aw ma ay adversaire yoo xam ne mais taille la damay nax sama bopp ndax ñi ma amoon ñi ay professionnel lañ mm-hmm. ndax boo xoolee rëg-rëg ñoom boo xoolee maa ngi nuyu sa oh, su mel ni waa Ares ñoom laa njëkk a signal muy waa Ares boo xoolee euh, combat yooyu boo xoolee bombardier ak man ñoo si waroon a bëre ak yeneen mbër euh, mais Ares dafa contacté bombardier bi nga ko contacté mu ne ka dama bëgg Sénégal ñu gën a am peuple wala ñu gën a xarañ su lu ñuy def Sénégal bu ñu ñëwee ñëppay ñëw mu cité ay mbër yu bari dugal ma si ñu jël ma jël ko moom par yàlla moom mënta fay ndax ki mu doon fayatal da ragal ndax yaram bi nu mu tolak yooyu. yàlla suñu borom def nag man ma ma faat si mooy bi amoon Dakar fii mooy waa Ares boo xoolee ñoom quatre combats a signé woon ak ñoom boo xoolee quatre combats yëpp jàpp nañ date yëpp ba war a dem nii mais coronavirus beeg feebar bi yaa ma gën a xam buntu yëpp buntu yëpp a tëju xam la expliqué léegi terewul ñu waroon nañoo fight France waroon nañoo fight Belgique Belgique bi mooy dernière ba biñ demee ba jàpp 4 avril affaire yi mbas mi ñëw mais jaam ak pexem yàlla ak dogalam. waa Ares tamit comprendre ñu ni lii euh, envoyé ñu lettre boo xam ne tey jii bu ñu gisee beneen combat am kaa jël tàggoon nañu ak ñoom par yàlla yàlla suñu borom lu muy def rek bu la bëggee dugal ci moo xam ne tey jii da lay ibbil yi day day yomb seew par yàlla ñu benn euh, manager boo xam ne moom ak Leyti Leyti la ak Kedo ñoom ñoo nekk sama manager bi mu ngi dëkk Allemagne waaw bi ñu waxtaanee ba jubóog ñu nag moom. mu ne mu nangam nangam deux mois naa leen décrocher ay combat ñu ne ok mu signé bu ñu paree acca combat yi commencé nag si la ñu ñëw décor décrocher woon woon championship. mais ci wàllu mhm. xaalis. lamb lu muy fay moo ëpp. waaw boo bëggee dégg dégg ko ndax lamb. boo moo ëpp fuuf ndax lamb yow un euh, cent cinquante millions lay am deux cent millions. MMA ay milliards la. gars yi milliards nañu fay ko. non dool duma ko wax. sant naa yàlla sant naa si yàlla xanaa déggoo ma yow sa kase yow li ngay fayeku <laughs> li ngay fayeku nag ma koy wax. non dama posé question yi li ngay fayeku nag ma koy wax. acca bismila waaw fii nañ ma fay. yi. non gars yi jàpp ñu woon nag mu yomb quoi ndax boo xoolee non attends non ñu si wax bëri na waaw mais ñu si wax bëri na mais boo xoolee làmb ji combat bi Sénégal dañoo tiitoon ndax waa ji entraînement am ni muy def ay sexe yi muy def ñëpp dañ see tiitoon ñu ne tey la may rey n'est-ce pas mm-hmm. noonu la demee nag mais man gëmoon naa ni man maa ko mën mais boo koy wax gars yi dañuy yaakaar ni maanaam damay wax ci nii rek mais loolu lu ma gëm la lu nekkoon ci man buñ ko dëggaatoon tey sax maa ko mën loolu dafa am. <laughs> amu ci merci. amu ci dafa mel ne amu ci ndax boo xoolee bàyyi naa ko 3 minutes yoo xam ne laalu ñu lépp technique la ñuy xeexee maak moom laalu ma ko laalu ma ko waaw boo xoolee bi temps bi lee des ay deux minutes man a xaar kii ma jaay ko fukk xale. daal ci koom mais rek bëri lañu xam si yow mais dañoo gis keroog nga sànni ay tànk. waaw mais lépp dañuy liggéey dañoo ab fay ay coach yoo xam ne ñun dañuy def suñu bopp xaalis pour ëllëg bu ñu duggee sëriñ bi mën a prouver mën a wane liñ liggéey waaw. xale laa nag damay door ba léegi. <laughs> non xale moo tax man la xale laa damay door ba léegi amaguma dara xale laa daal maa ngi sama yoon di entraîné. dafa mel ni bi <laughs> euh, doon gis sa adversaire di ko def. Mhm. par rapport ak bi bu jotee tànk bi jugul. Mhm. Mm-hmm. daa mel ni yónni nga bi tànk yi jóg nañ da naan tànk yi jóg na mais dal na ma mais dama ko baare tànk yi jóg na tànk yi jóg na le. par rapport ak entraînement bi nga tey ji li ngay entraîné. Mm-hmm. comme gestes yi ngay def si entraînement combat dafa sérieux professionnel la yu ñàkk fay rey doo ko def. Mm-hmm. entraînement nag mën ngaa def lu la neex mais boo ñëwee ba si ring bi ban tëj kaas bi ban jël kànnaar bi dugal foofu lu lu lu na a moo la fay tax génn. mais dawul nekk fi di fo. waa mais xam nga tey jii boo ma nee la ñaanu laa wala ñaanuwul la ma loolu sama staff la intéressé. intéressé wul Sénégal non non non non non foofu professionnel moo fay dox. professionnel mooy dox foofu amul ay ñaan professionnel moo fay dox mais terewul ñun am nañ ñoo xam ne tey jii dañuy ñaanal si àdduna sunu maanaam boo déggee mooy ñi ma ñi ma voilà si wàllu combat yi dañuy ñaanal yàlla suñu borom mais dañuy ñaanal yàlla suñu borom mais joxuñu ñu dara. mais defuñu ñu dara mais ñooñu ñu nag ñoom ñoo ànd tey mënoo dem di fight doo leen wax dara da leen di wax ñaanal leen ñu rek te yàlla rek tax. mais na duñ la jox dara duñ ko def dara mais foofu sax xam-xam moo la fay génne ak sa sa fit loolo fa am. mais différence euh, MMA ak. Euh, lutte simple ak lutte avec frappe. lan mooy seen différence. waaw amul différence nag boo xoolee amul différence ndax boo xoolee MMA am na boo xoolee 60 pour cent si bëre bëre. dafa am si MMA. boo amulee sens laa dinañ am ñu jóge Europe di ñëw di di jàng fi bëre. ndax am na fi gisoon nañ fi ay tubaab yu ñëwoon ci combat euh, newoon si ay xuwaan. xam nga lu ma mhm. kon kooku rek war na ñu bàyyi xel si loolu. Mhm. waaw. danger bi ñu ko jox amu ko. Mhm. Momar Aliou Ndiaye champion de boxe aussi. Mhm. bi mu defee analyse yi ay coach Diop ak ñoom ñëpp dañ ne. Mhm. adversaire bi waaw mën nañu wax ni que. gisaguñu. Reug Reug sa benn. waaw léegi dajewul ak yéen adversaire. kaay moo wax fekkee âge rek nañuy wax man fi ma ne moo ñooñu ñëpp ma mag mënuma faa daje koo xam ne ñoo tolloo âge ndax boo xoolee ñoom bala ñoo dem pois lourd dañuy jaar léger jaar poussière. doog a yëg poids lourd bala nga àgg poids lourd yow day day fekk nga am laxa sa 39 ans wala 37 ans man dama ñëw rek dem poids maa ngi ni gën a doon xale. noonu la demee mais gars yi wax xamaguñu. lan la ci MMA bi la ok noonu la demee. yow guy gi lan la guy gi benn jaari mhm. yoo xam ne ko neex. Mhm. benn bi mooy ki mu doon bu bu leen ma MMA ki mu dajal mag. la waaw muy benn. Mhm. ñaareel bi. terme man bi ma naan wax sax la <laughs> ñi duma ci bokk man ko waaw wàcc yàlla na barke seexu canaba bu ma ko daanee bu ma daanee mu lan su ma su ma jàppee non non daa bu ma daanee mu lan mu waxul xaru lu mu wax mu doon mu doon jaayit mu la wax waa xam nga tey jii gis nga làmb kenn du siy waat yenn waat làmb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 mu métti ko lool. Mm. teewul nga wax nga wax ko la ko fay wax. Mm. <laughs> ñu ne Reug Reug Sa Thiès nga xëpp ci kaani yi. Mm. yow ak guy gi biñ koy door communication. dañ la moytuloo. Mm-hmm. wala sa estafari ni déet waa ji defal nag mais guy gi lu mu mës a wax ci lamb daf koy def. da koy def. loolu sûr. loolu ñëpp dafa war a léegi léegi Reug Reug ma laaj la benn affaire.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 mais ngalawaay man duma ma ko mës a dépassé du ma ko mës a dépassé du ko mës a jàlla baat boo xam ne da kay ñaawul. mais xam nga lu ma la expliqué lu ma la mën a expliqué rek lu ma la mën a expliqué te lu gàtt te bëriwul am na combat. foofu laa si yem. avant combat bi daawoo wax ni. Hmm. avant combat bi taxaw attaqué nga. waaw xamul tax ma guy gi génn def sorti hmm. hmm. boo jëlee yaa ko gën a doon xale. bu jëlee avance nga dóor ko. daan ko. bu bëggee sax nga dagg si sax xaalis yow. yokkal ko guy gi pour bëre moom. combat bi maa wax loo déglul noonu attends non non xam ba léegi tonton Gool moom maanaam. li ma faral di wax yéen posé góol ma ay question yéen da ngeen ni instant dañuy waxtaan da nga may posé question ma tontu suñu avancé waxaat leneen man noonu laa mel. parce que réponse bi ñuy xaar. waaw moom ngeen gisagul. waaw léegi xam nga lu ma wax loolu. ndax tey jii euh, bu ma juumalee defoon nañ fi benn émission boo xoolee moom mu nekk seen kër man ma nekk suñu kar waa TFM. Euh, di profité du nuyu Maawo. ak équipe bi yëpp maa ngi leen di nuyu. ku mel ni Youssou Ndour maa ngi koy nuyu. dama ne la lu tax ma communiqué noonu. combat laa bëggoon aw jën. aw nga kaa jàpp. da nga koy si biir ko. ngay xencu meb bi est-ce xam ne est-ce lii meb bu baax la wala bu baax bu ko xencu ne lii baax na mu jël bu jëlee nag nga tukkal njam xëcc jeex si gaal gi. guy gi noonu laa ko def. ko tukkal dama ko ko yëgal ko gaal gi ba pare nekkaat si leneen. ndax moom boo ko merloo rek nga am ka te loolu du sport sport xam nga lan la. kafre. kon daal man rek su ma déggee wax ji dafa mel ni dafa mel ni lii du combat daal yow yow li ni. Ah, ne li ma déggee ni mel ni lii du combat parce que moom jàpp na boo pare. non naa ko boo déggee jàpp naa ko mooy maanaam sama combat ak moom guy gi bu leen dégloon ay communiqué am danaan ma sama palaa A bokk si B bokk si E bokk si. C bokk si beneen ba la bokk. est-ce que gisoon na léegi maanaam tëb na A tëb na B tëb na C tëb na 1 e, ñëw si man. kon li ma doon jàpp jàpp naa ko tukkal naa ko. ndax mooy li may faral di wax. nit ki bul mer ba jël loo xam ne dalay lay gaañ pour ëllëg man doomu aadama laax si kaw suuf mer merloo ndax sama xol toj na ni damay def saaga ma ndey si làmb ma xool ko ree dem sama yoon loolay sportif sportif waroo xol yor benn xolu rànkiñe guy gi dama kaa koor meeb mu fóon ka sekka ma tukkal ka yëpp ka si gaal gi loolu laa soxla woon. ceene rek doole lay nañ ci nga ko ëpp ci bu ngeen sëqee. Mhm. xam ne am na doole. Mhm. macha allah. Mhm. forum la. bu gal yi fi daan. daan yëpp si ngeen bala bëreeg ñoom. da lay téye. Mhm. imposer la force am. Mhm. daan mhm. waa xam nga guy gi li may mën a wax si moom du bëri comme tellement quoi ndax ñun xamaguñu fan nañ jëm. comme <laughs> dina am. loolu moom ala kulli dina dina am uy ma ala kulli an day am. ndax lekk nañ avance jàmbur moom lekk na man lekk naa allah kulli aan day am ndegam yàlla suñu borom mu ngi may fanu gudd ak wér ah, ak santé bu baax combat bi dina am mais dama ne la gis nga guy gi na xool nu muy déglu naa ko nag si benn lii ah, comment dire loolu sax dinaa ko leeral pour àdduna xam déglu naa ko si kii mu ne ma man maa ne bu doonee guy gi. man na ma kaa bu doonee saakees 15 millions laa koy préparé bu doonee comment dirais bu doonee guy gi million foofu xam nga nu mu demee rôle boobu laa la expliqué tey nga xam loor boobu xam nga nu mu demee n'est-ce pas bi may wax seex yaa ngi woon fii toog audio bi audio la ci télé laay waxee si seen YouTube laay waxee ñëpp a koy adduna ñëpp kay koy seetaan mm. audio la comme li ma la wax rek sportif warta gaaw a gis boppam warta gaaw a mer audio la laa lay wax ma guy gi euh, buuse day dégganteeg seex nest pas day dégganteeg man audio bi ma si moom laa ko dama ko lii nu mu tuddati vocal laa ko def vocal buuse laa vocal si boppam ndax buuse kaay ma wax la nag mooy ban saaru nit buuse nit ku baax la ku bëgg géejawaay moo nekk noonu pourtant damay dégganteeg ma da day ñaan yàlla suñu borom yàlla na guy gi daan ma moom day ñaan loolu wallaay lazim billaay wallaay taala sama bàmmeel laa toog te pourtant damay dégganteeg moom. ñu ngi koy jiñ lu ne. waaw ñu ngi koy jiñ lu ne moom laay expliqué nii barki bu ne ma eh, chaque jour saa bu déggee da naan ma eh, man faralu ma la guy gi laay ñaan yàlla na ko yàlla suñu borom may ndam. kon kooku di wax loolu bëgg na géejawaay. bëgg na gosam moom buuse. buuse kenn la ci géejawaay. is xamal ma la expliqué kon liñ koy waxal yëpp. wallaay lazim man bu ko defoon dama naan la eh, moo ko def wallaay lazim man du ma ëllëg bu ma deewee. sama lo voilà déglu rek dinaa ñëw si audio bi loolu jarul yàkkamti mhm. bu ma deewee ëllëg bu ma deewee ëllëg mhm. man du ma du ma naafeq du ma waxal nit ki lu mu deful wala may aggraver leneen non li nga ma wan rek laay laay xam yaa may dégg bi may déggante moom day ñaan naan yàlla na la guy gi daan te pourtant si dëggam la ne dama ko nangul moo tax ma ne sportif warta gaaw a gis boppam warta gaaw a mer bi ma audio audio bi dama audio audio bi non dama audio ñuy waxtaan noonu après moom moo euh, bu ma juumalee kii. non non avant Boucher keneen ki ku Abdou euh, Diouf jël vocal na ma yow guy gi bu la jàppee dina la duma dina la daan ma ne ko kooku ragal la du jël sama avance. boobu lekkagul non non boobu taxawagul. léegi mën na ni seex toog ni mën na ko seex ba xam nga combat bi day taxaw mun a ma mën na ndax gan gi. Mhm. daa gaaw a siisu daa gaaw a gis boppam. rek ma téye vocal bi vocal une minute di teg la. mais loo ci wax. li ma si wax kay defal nank dina ñëw. bul yàkkamti si loolu gis nga audio bi. bi ma waxee ma ne ka man maa wax loolu si audio bi. Mhm. boobu combat bi taxawgul mooy maanaam mooy meb bi rek. Mhm. meb bi dama koy yor ndànk. ma wax audio bi ne ni euh, gis ngeen euh, maanaam guy gi. ma tagg ko foofu mën naa bëre macha allah nangam nangam tagg ko moom lu mu mane. Mhm. mais gis nga après bi ma pare si audio bi mu ne ma ne nekk nag man maa ko man maa ko ëpp doole maa ko dàq bëre. ëpp gàllaaj non teel rek maa ngi ñëw teel rek maa ko ëpp ga non non gàllaaj waxuma ko gàllaaj dama ne ko foofu bu amulee sens maa ko fa ëpp ndax waxuma ko maa ko ëpp gàllaaj rek kaa xam ko am gàllaaj isa ma lu expliqué ma tàgg nekk yow sa tànk yi baaxul maa ko waxoon loolu ndax lépp bëgg combat ndax boo xoolee sa combat ak saakees noonu noonu foobeel saakees nangu la bëre ak man kon il faut man ma xam naa ne moom siisu man la day jël combat man audio booboo tax nag tey te pourtant te pourtant lu combat bi taxaw moom. lu nekk la ci dégg lu nekk la ci dégg. te pourtant moom moo siisu jël combat bi. noonu la demee nag damay leeral rek pour mu leer. waaw li nga leeral voilà mais man li ma jaaxal da ngay par des fois ne <laughs> yow soo mooy yow génn gaal gi ba ko fa. non non non loolu mënta ne. ay siik non ay déglul siik. est-ce que guy gi doon siik ndax xamul tax. guy gi champion la ndaanaan la. mën naa bëre lépp nangul nàkk mais na ma nangul xam ne maa naq maa gën a naqaree bëreel si mbëri ndax looy bëgg def looy bëgg def si kaw si bëre laa loo si bëgg def sa tànka wee fu mu jógee dinaa xam yow loo bëgg def yow jaar nga si équipe jaar nga équipe nationale n'est-ce pas bu ma juumalee. voilà man loo bëgg def si làmb xam naa bu ma toogee di seetaan mbër laa la wax. Mhm. bu jàppee dama naan kay kele bi lay def te loolu lay def. kon loolu boo mënta bëre doo ko xam guy gi mënta def dara si bëre ba jaaxal ma yow xam nga ni sax laasana yow maa dàq bëre guy gi yow xool loolu xam nga ka ah! non xam nga ka non bokkuñu suñuy non suñuy bëre mm-hmm. ñoo bokkul daanu ma kum daanun xam nga lu la expliqué moom daanu maanaam moom daan na ñoo xam ne man daanu ma leen mm-hmm. mais bëre yee bokkul man lu may def day wóor dégg naa daal dégg déglu ndax Sénégal dégg naa ñu tuddee roi di. Sénégal lutte simple. Sénégal la euh, nu ma la ko mën a expliquer gis nga Sénégal noo wax ba nekk fi da ngay liggéey ba nekk fi rek. yaa may dégg noonu la demee mais guy gi mënumaa dàq bëri si àdduna yéen ñii journaliste yéen ñëpp xam ngeen ko guy gi mënumaa ëpp doole non nañu waxtaante sérieusement guy gi mënuma ëpp doole dañuy waxtaan légèrement. guy gi mënumaa ëpp doole. mënumaa dàq bëri. loolu yow boo tëddoon ba guddi buur ñu wax la ko guy gi mën na maa ëpp doole mën na maa dàq bëri doo ko gëm. non doo ko gëm. ku dàq xeex. doo ko waaye xeex yow guy xeex guy kan la fi dóor mu daanu. mbalaaw mbalaaw la fi def. non mbalaaw la loolu du du kuu bu dal la. mbalaaw xam naa li ma kii xam na ka sànni bu waaw mu mbëkk ka non non jos moo mbëkk kuu daanu loolu dañ ko koy nangul moom moo ko def mais dama ne la dóoroogu fi technique boo xam ne lii xeex la xeex bu jaar yoon tey garde bi normal dox si kaw defagu ko nañu waxante dëgg. nii rek lay def nii nii. yow mos ngaa def man. waaw samay combat. bu may xeex man ak Brise de bi may xeex ak moom gis nga li ma ko def dóoruma ay combat maanaam ay lii man bu may xeex damay xam lu may xeex lii nii laay xeexe te dina damay faral di dégg ci benn suñu benn kilifa ndeysaan dañuy faral di ñu wax benn baat da du wax dina euh, du ñu lii nu mu tuddati du ñu wax ku xeex. ku daan la wax. man dama lay dóor daan la. wala yow ma may sëb ku daan la. mais buur kii dafa Mm. dama gis fan yii paase bu jógee euh, ci MMA bi. Mm. ñëw sol blazer bu yéeme bu mucc ay Modou Lo dafa sol blazer bu mel noonu Balla Gaye sol blazer bu mel noonu <coughs> moom it mu ñëw sol lu mel noonu. Mm. comprendre ma nag man comprendre ma daal. waaw mais xam nga non non xam nga tey jii mooy yenn saa yi yenn saa yi il faut nga génn beneen style. c'est la première fois laa ko sol sax. gars yi ñëpp a apprécié nee na damaa jàpp. non dalaa jàpp <laughs> bañ am na journaliste yoo xam ne sax am na journaliste yoo xam ne dañ may ñaan affaire ma leen lii lii jotul leen. ah jotul leen mos. <laughs> nañ waxante dëgg. comme ñaan comme. ñëpp ñëpp ñëpp jotu la. ah waaye dama loolu mais yenn saa yi day baax ngay génn si ay feem yoo xam ne gars yi dañ maanaam ñii di sol lii ñii dàq ñu la kaa sol. am na mën nga coow mën caa. noonu la deme moo tax ma génn foofu di profité di si nuyu sama papa Alassane Niang ak soxnaam Tata Assou bu ma nekkee New York si ñoom laay dal ak Mouhamed doomam ak papa doomam ak ami ñooñu aw ma seen fay. wallaay lazim dañuy jàpp samay mbir yu bëree bëree bëree bëree bëri aw ma seen fay fa ñu maa ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom defal leen jàmm gën leen a boole. waaw seytaane Fallou Ndiaye tuddee mhm. bu mhm. Mhm. ndeysaan ndeysaan Fallou Ndiaye dafa baax rek fallu njaay mën na maa wax promoteur yi sama waay la Fallou Ndiaye bi ma nekkee yoof bi ma nekkee Yoff Fallou Ndiaye dama daan dem aéroport la loolu liggéey yaa ngi fi loolu aéroport Léopold Senghor bu njëkk. Senghor bu liggéey man ma doon dem ma doon foofu ma ñëwee saa si moom lay ñëw ñu toog waxtaan noonu mu doon sama gain damay jël làmb sax oo ko fenn ñu dem toog reer kon kooku day ni demlante di dikkalante bu defee li wàcc na ndax doomu réew mi moo demoon xeex kon yoon la mu sargal ka di si oo sama mbokki mbër yëpp bàyyiwuma kenn ah. li ko daggee franc ba si suuf ñoom seeti jan ñaa ñoom ñoom ñëpp maa ngi leen oo si bis boobu ñu ñëw jàpp xam ne maanaam seen doom moo demoon moo demoon xeex yi isa moom la expliqué di si woo waa Gàmbi tamit waaw di leen wax nag nañ ma xaar ah. bien bientôt la le 27 ak vingt 28 ku ko tàdd tàdd nga lu rëy incha allah. mais dama ne Reug Reug dama gis euh, fan yi mbëri booloo. Mhm. booloo bu am solo. Mhm. ñu dem TFM fan yi paase ku ci mel ni. Gris Bordeaux. Mhm. Boy Niang Eumeu Sène. Lac de Guiers Tapha Tine ñoom ñëpp ah. Modou Lô. mais tey geste boobu tey nan nga ko gisee lan moo tax Reug Reug gisuñu ko ci. waa loolu mooy maanaam geste boo xam ne tey jii dañ di wanal àdduna ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. ndax boo xoolee ñoo ñoo ñëpp bëri nañ seen biir. Mm-hmm. te boo xoolee ñu ngi kaf di ree. Mm-hmm. is na moom la expliqué yëgal nañ ñu ko. Mm-hmm. yaa may dégg. Euh, giri giri maa ngi koy nuyu au di ko wax yan bin ka yan nii yàlla na oyof si koom. xam nga mu la expliqué. mu doon nit koo xam ne tey ji yemoo xamul Balla Gaye xamul yaaw jaal ñëpp la boole. yaa may dégg. Gris Bordeaux ñëpp la booleel yëg nañ ko. yaa may dégg ñi mën a dem rekk kay mën a dem. waaw mais ñooñu dem tamit terewul luñ fa wax yëpp suñuy kaddu la ndax ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. Mhm, noonu la demee. waaw ndeysaan <laughs> ndeysaan ndeysaan non non nit simple moom wax dëgg yàlla nag bu ma waxalee te yàlla rek tax bawuma ma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 vingt am na solo rek mbas mi mbas mi du ñoo gis waa Gambie. Mhm. yàlla def ñu ngi ñu ngi ubbi seen làmb mhm. Sénégal ubbeegul làmb ba léegi mhm. mbas mi sonal ñu lan nga mën a wax ci loolu du ñoo gis fanee paas dem nga MMA ah. waa Gambie ñu ngi ñu ngi ubbi seen làmb bëru Sénégal sax ñu ngi dem làmb di dëgg la dëgg la noo xam nga tey li ma si wax du bëri ndax boo xoolee lamb moo mujjee tijji est-ce tijji na sax wax. ban ban lamb. lambu arène tijji na. waaw tijjeegu xam nga tijjeegul boo xoolee sport yi nekk si adduna bi yëpp ñu ngi def huis clos. Mhm. mais est-ce que Sénégal mën nañoo def huis clos. ndax nañ ko def. waaw neema lu tax. ok. huis clos. Mhm. bu amee si lamb. sponsor yi joxe ki la waroon a jox cent million mhm. jox la dix millions. si combat boo xam ne cent cinquante million la est-ce que huis clos boobu dina ma a ne. du mën a ne. mais état bi ndax sponsor waa xaaral xaaral ma ñëw avant état bi mooy sponsor bi. Mhm. sponsor euh, euh, état warut a ñëw jàppale làmb xam nga la war a def. Mhm. sponsor yu am doole yi nekk Sénégal. ñoom la war a xëcc ne leen par force da ngeen a war a ñëw soutenir sunu culture bi muy làmb. loolooy développé làmb mais du ay état ñëw jàpp si làmb isa moom la expliqué mm-hmm. noonu la demee mais ngalawaay maanaam euh, suñu président bu bees bi muy Gris Bordeaux non euh, Bira ñu koy ñaanal yéen bi yàlla na oyof si koom waaw mais nag ñu ngi wax na suñu papa Alioune Sarr mm-hmm. li fi def mm-hmm. fu mu yóbbu làmb dañ koy ñaan rek nañ koy defal ndax ginnaaw yàlla lépp moom la moo indi làmb bof yi. Mhm. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm. moo xam lu mu bëgg si ak ay njabootam yëpp yàlla na nga suñu borom defal si barke Seydina Mohamed. Bira Sène tamit maa ngi koy ñaanal bi muy ñu ko yan yàlla na oyof si koom ba mën a soutenir ba problème yi si nekk yëpp muy sponsor lépp mu indiwaat ko si làmb yi si barke Seydina Mohamed. amiin Reug Reug. Mhm. dañoo gis fan yi passé. Mhm. Gris Bordeaux président Gris Bordeaux. mu def mhm. benn point de presse bu mag see Kacha. ma yëpp ñëw ci. boobu tamit wax dëgg naa yàlla gisuñu la. gisuma boobu damaa dem voyage voyage laa demoon li may wax mooy. dafa am lu mu doon revendiquer. état bi dañoo yëkkati xaalis bu bëri. Mhm. jox waykat yi. Mhm. jox ñu ne ba mhm. léegi waxuñu mbëri dara. te mbëri ci làmb lañu yaakaar loolu tey rek lan mooy sa lan xalaat ci loolu. waaw man sama xalaat du si dara ndax xamul tax du si dara. Euh, ñun mooy li ma faral di wax rek état état dafa yéex a day yéex a réagir si mbër yi. xamul tax muy yéex a réagir si mbër yi xaaral ah. xamul tax muy yéex a réagir si mbër yi. avant tout mbëri ñoo war a bokk ndey bokk baay. mais booloo nañ attaque ma ñëw rek booloo nañ. mais dama ne la ñoo war a bokk ndey ñoo war a bokk baay ku si am combat nit ki sa combat bu jeexee war ngeen a seq jàmm ak avant loolu tout. mais fii da ngay bëri nit ah ngeen daje mu mel ni da nga kaa réel taam du àdduna àdduna ndam loo mënti am si senegal lay yem fa lay génn. bu génnee bu génnee xanaa ñi nekk bitim réew doon sénégalais ñoo ñoo ko génn fii la yem Sénégal lay yem. kon ñun ngalawaay ñun ñoo war a bokk ndey bokk baay mais xam nga lu ma si expliqué mooy maanaam ñun daal nañ liggéey rek ndax tey ji boo liggéeyee ngóor gi xamul ay triche boo liggéey rek mu fekkati la mais ngalawaay ñun bu ñu tey ji xaalis boobu ñuy wax bu ñëwee bu ñëwee est-ce du bëri du am problème. association lañ wax non attends association nañ wax. Mhm. loolu du la mais bu ñu ñëwee. am nañ lépp lépp am nañ ka mhm. lépp am nañ ka mais bu ñëwee bu ñëwee bu ñëwee baa du indi coow une bonne question. foofu laa si yam <laughs> waaw di di nuyu waa Sénégal yëpp. waaw di wax yàlla na fi jàmm yàgg te wér. si barke Seydina Mohamed di nuyu waa Caalaan Jonwaar ñoo Falia Basaar Basuul ah ah Basaar Basuul ah. ñëpp maa ngi leen di nuyu su mel ni waa Diofior Fimela Nangaan Samb Mbar Faafaxo Mar Looj ah waa Mbeel a ngi aw ma seen fay ndax ku dégg ba jëg nañuy sonn si man surtout waa Caalaan aw ma seen fay ñooñu ginnaaw yàlla bu rek rek egg fii gérer nañ ci ruur bu garaaw. bu doy waar kon awma seen fay ñaan rek laa ñu defal di nuyu tamit waa Caaroy Géej awma seen fay waaw maa ngi nuyu waa Géej gépp képp ku mës a jàppale Reug Reug rek maa ngi lay sant di la gërëm di nuyu buur awma fayam ah ak Mame Waly maa ngi leen di nuyu bu baax a baax baax dañuy jàpp samay combat ah ak euh, directeur duwaan Basirou fay maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax gis nañ jàppale yi surtout buur tamit awma sa fay buur maa ngi lay ñaanal yàlla suñu borom bàyyi la fi parce que kanam ak kanam du nuyu ñëpp bu ma liyee damay du buur géwél buur sama mbos waaw ak jiri CSP ah maa ngi lay ziar tamit di la nuyu ah, di la wax nag nga gën a jàpp yàlla baax na yàlla nañu yàlla defal jàmm kontaan naa si yéen waaw di wax nag maa ngi jégalu ñëpp bu fekkee dama fay wax baat boo xam ne tey jii méngoowul ak li ma bëggoon ak buggoon a def rek maa ngi jégalu ñépp xam ne nit laa waaw dañuy jum mun fay waxee nag baat boo xam ne dafa yiw ñoo xam ne yàlla suñu borom moo ko moytandi wasalaam. waaw rendez la le 27 le vingt bu ko kenn tardé takk sa bom boobu foofu moom dina neex dina yëngu.